wala ceux du PUR. taxaw ils ne sont plus dans le groupe Yewwi hein. non non non d'accord allez-y donc loolu mooy mun beneen question la également. Oui. donc man dama jàpp ni que tey jii ñoom ils n'ont pas du tout envie envie amuñu ko parce que su ça c'était su su aurait été très facile pour ñoom ok waa ji bëgg nañu mu ñëw. nañu gaaw gaaw gaaw régler cette question de règlement intérieur. bañ ko jox prétexte su fekkee prétexte la comme ça par la force dana ñëw mais ñoom yomb na ci ñoom. waaw bu ñu ko deful di toog ay conférence de presse et consort mooy maanaam amuñu envie. changer le règlement intérieur te fekk ah. changé wuñu ko aussi. waa ji du ñëw. Euh, man de je considère que wax fa dëgg yàlla il est dans son bon droit même si une déclaration de politique générale c'est quelque chose qui fait vivre la démocratie. très bien ouais. alors déclaration de politique générale boobu Amadou Ba Ousmane Sonko Pape wax na ko léegi. condition bi mu teg pour que mu dem fa assemblée mooy il faut que ñu changer le règlement intérieur mhm. delloo si les dispositions concernant le premier ministre ñu man ko ko nagul nag comme ni ko euh, Pape waxee euh, sànq mhm. alors mais li ñu jaaxal wala boog li ma jaaxal man pour ba a yóbbaale kenn mhm. mooy bu ma ko liiree tey ci lettre réponse à Guy Marius Sagna daf ne d'ici le 15 juillet dina def sa déclaration de politique générale ma ne c'est très bien mhm. mais là où j'ai un vrai problème mooy constitution bu Sénégal moo ne ko nga def sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale mhm. pour la première fois ñu nar a dem ci loo xam ne constitution bu Sénégal waxu ko mooy Ousmane Sonko nee na benn jury xaw ma ay universitaire des citoyens euh, des acteurs citoyens sénégalais ab politique peut-être même ab politique Sénégal peut-être même des chroniqueurs comme ñoom Mame Birame ak ñooñu ñooñu lañ nar a boole pour def sa déclaration de politique générale mais loolu mook violer loi bi ñooyam parce que constitution prévoirul loolu waxu ko loolu quand même Amadou le président la premier ministre su taxawee mhm. dans une instance hors assemblée nationale hors assemblée mënoo mënoo too loolu moom moom moom premier ministre bu ko neexee mu tuddee ko déclaration politique général mais du déclaration politique général amul loolu yomb na trop. non xaaral mu wax la mu ngi mel ni tey. oui bu ñu nee la loi de finance nii lañ koy élaborer soo ko bëggee élaborer en dehors de l'assemblée sañ nga ko mais juridiquement loolu amul benn valeur. li ma la bëgg a wax moom dafa ni la man pare naa man vraiment j'essaie pas de défendre l'indéfendable parce que sinon amul woon utilité dama dama leen wan ni je suis am naa une déclaration politique générale. mais yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen maa bëgg a pousser à l'illégalité du ma ko nangu coup bi gis nga le coup mooy ñu pousser ko mu dem assemblée xam nga conseil constitutionnel bi mu naan président Macky Sall ñun ñëpp ñu metti ñu metti lu ko woon damaa bëgg wàññi sama mandat conseil constitutionnel ni ko déedéet du ma ko nangu. oui ñun ñëpp la metti woon. Mm-hmm. élection yi comprendre nañ lan moo tax on ne peut pas jouer avec les dispositions constitutionnelles dafa ni su ma la bàyyee nga wàññi. suba boo bëggee yokk mun nga ko tere ndax mandat bi bu dee mën nañ ko wàññi rek mën nañ ko yokk mais dafa war a intangible loolu on n'avait pas gis mais tey bi ñu ñëwee ci élection yi mu ne da koy reporté yokkal boppam presque douze mois wala dix huit mois on a compris lan moo tax conseil bañoon loolu il faut pas inaugurer ay affaires yoo xamante ni baaxul Ousmane Sonko le plus important bi mu leen wax nee na leen si discours 15 juillet vous faites du dilatoire maanaam jëlu leen benn initiative pour que ñu delloo delloosi les dispositions qui ma permettent nee naa la Guy Marius Sagna avait écrit une lettre à du Ba premier ministre lettre ni ko constitution bi dañ ko ab dañoo dindi les dispositions sur le la déclaration politique générale lettre la ko adressé ni ko mënoo ñëw assemblée di ko def donc tey su président Ousmane Sonko topp coow li wala dara daal di day ñëw day inaugurer benn ère d'illégalité sous couvert politique là on d d'accord léegi li mu wax foofu mooy si jusqu'au 15 juillet defu leen ko defu ko mais je vais faire ma déclaration ci ay universitaire wala benn panel de citoyens ak lu ñu bëgg mais loolu techniquement juridiquement loolu déclaration politique générale. loolu laa bëggoon ñu d'accord. non loolu amul non mais. Ah, en tant di yëfam la moom Ousmane Sonko. yëfu politique la. xam nga loolu c'est de la politique. oui mu expliquer ni la. on m'a poussé on veut me pousser à l'illégalité maa bañ mais dinaa leen jox le contenu comme que vous dites que ça n'existe pas même si mënuñu ko discuter. kon l'état d'esprit mooy c'est vrai du ma violer la loi. malgré que da ma ci bëgg a mais comme sénégalais yi laa ameel wax leen. lan mooy sama politique général mhm. dinaa leen ko wax. jeex na c'est plus c'est, c'est aussi simple c'est que parfois on veut faire des choses. mais, mais quand non. je lis quelqu'un comme Madiambal Diagne il dit que là c'est un coup d'état. non mais Sonko di annoncé. encore une fois. Ouais. encore une fois en dehors de l'Assemblée nationale mënoo def déclaration de politique général yow mën nga ko tuddee noonu. mais loolu amul quelle est la sanction juridique suba quel bu defee déclaration devant des un parterre de citoyens et d'universitaires la quelle est la la ban modifi ban impact lay am ci marche dëkk bi ci loyauté ci légalité wala dara pour ñu comprendre quoi donc kon kon duñ ko inscrire kon dan les annales de l'histoire bu fekkente ne defal na def na ko foofu noonu déjà am na fu mu ko war a mën a defee mu joxe une date date boo xam ne sànq maa ngi koy Moustapha mu ne nekkuma dans la tête d'Ousmane Sonko mais ñëpp xam nañ que ni date bi mu joxe le 15 juillet pour que ñu woote ci def lépp ba nga xam ne dinañ modifier le règlement intérieur ce serait quasi impossible même. est-ce que non dina jafe en tout cas. non lu tax muy jafe waaw léegi léegi léegi mën na nekk. léegi mën na nekk pourquoi Ousmane Sonko ñëwu leen carrément du ma ko def. tant que modifié wu leen réglementaire lu dul mu fixé leen une date ba pare na koy defee feneen est-ce que du jox dëgg ñuy wax que ni dafa bañ a jàkkaarloog cette législature bi nga xam ne am na yu ñu ko doon préparé bu fa defee. moom nawu leen na nawul législature ba est-ce que dafa bañ a jàkkaarloog ñoom koo préparé dara su demoon def sa déclaration def na ko encore une fois en violation des textes mhm. mais ñoom derrière lan lañ koy defar qu'est-ce qu'ils peuvent faire. des questions réponses. ba waaw question réponse yooyu. quelle est la conséquence juridique. amul mënoo ko defal motion de censure donc pourquoi se prendre la tête sur ces détails là. li mu la wax dafa. mais mais léegi Amadou pour régler le problème de Issa est-ce que Ousmane Sonko loolu mu nar a def après le 15 wala d'ici le 15 comme il a écrit lui-même est-ce que mënu ko tuddee neneen nu déclaration de politique générale parce que li Issa wax mooy tey su ko defee. Mhm. ailleurs qu'à l'Assemblée nationale tey boo demee dans les archives de l'Assemblée. loolu wuru faa nekk. soo demee dans le site du gouvernement du faa nekk parce que benn loi prévoiru ko benn texte ko. xam nga nee naa la et ça xam ne xëy na mën nañu ko favorable même apolitique ñan ñoo fi apolitique au Sénégal. franchement. Mhm. nee naa la li mu bëgg a liir bu ko neexee bu génnee à l'assemblée mu tuddee ko sama révision constitutionnelle. Mhm. léegi suppose mu nekkoon un texte de révision constitutionnelle ñu ne may ñu ko mu defee ko biir assemblée mu présenter ko selon les formes. mu ne day dem université présenter foofu révision constitutionnelle su paree dañu réviser constitution lii bu ko tuddee moom moo ni déclaration politique général bi bëgg naa ko def ci assemblée j'ai donné les instructions en ce sens d'accord léegi qu'est-ce que je vous demande li mu wax ci texte bi dafa leer pour ngeen delloo si les les les dispositions qui me permettent de venir à l'assemblée mm-hmm. mënoon ta def foofu point bi rek waaw xëy na mënoon na faa def point bi mais xam nga politique bañ une fois c'est un homme politique affaire bi dama la bëgg a wax amul benn incidence juridique. kon kay na dem grand théâtre comme ni ñu ko defee amul nee naa la bu ko defoon grand théâtre stade wala à la plage moo ci yem. Mhm. loolu amul benn conséquence juridique bu ciy judd. non dégg-dégg bu nga ci am comprendre la loolu kay moom non non il faut que loolu leer ci ñëpp quoi c'est que ñoom dañoo bëgg di graawal toujours yoo xamante ni. amul benn impact. bu ko tuddee foofu déclaration de politique générale révision constitutionnelle loi de finance ça n'a pas d'effet est-ce yaa ngi comprendre bu baax. parce que. déclaration de général mooy loo xamante ni biir assemblée nga koy def. kese jeex na mais yow sañ nga koo tuddee noonu pour des raisons politiques wane ni ab assemblée dafa bañ adopter les dispositions qui ma permettent de venir je m'adresse au peuple. parce que là Ousmane Sonko de la politique. ni leen nag. parce que tey jii hmm. suñ demoon tey élection dissoudre assemblée il faut nga mën a expliquer lan moo tax ñu war laa jox une majorité. parce que boo demee ba mënoo def sa déclaration politique générale ñoom mu nekk seen intérêt ñu def loola ko ab majorité empêcher légalement un premier ministre de faire boobaa di nga mën a expliquer pourquoi yow ñu war laa jox majorité. d'accord maa ci ñëwaat léegi euh, Amadou Ba euh, maa